Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني اللهم بحق وجهك الكريم salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya man ja'ala haasihi al-hurufa ridaaka wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi comme ni leen ko waxee ni ngeen ma gisee ma taxaw maa ngi fii nga xam ne rek mooy ci cité magistrat mbokk yi ah lu am solo lu doy waar seen émission fajum cosaan lépp ñu koy def ci professionnalisme lépp ñu koy def ci yar ak i teggin lépp ñu koy def ci xam-xam bu wér teg ko fu wóor mbokk yi tey ma ànd ak kan kii nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi moom laa fas yéene defal émission bu mag émission bu rëy mbokk yi ah bàyyi leen ko xel loo xam ne dafa jëm ci wàllu alquran loo xam ne dafa jëm ci wàllu asrar loo xam ne dafa jëm ci wàllu kurus loo xam ne dafa war a jëm ci wàllu ñaan boole kook nag ah mbokk yi di leen xamal diini di leen xamal lislaam ci la Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan dëkk mbokk yi moom la ñu fekk si tey fii nga xam ne mooy ci biir këram fas yéene ànd ak moom ci émission bu mag émission bu rëy boo xam ne war nañu koo dund tey ak seen mbokkum taalibe Serigne Gueye maa ngi egg si ak ki nga xam ne rek mooy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye Serigne bi maa ngi lay ziar bu baax naka yitte mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi bu baax a baax dafa mel ne kon si naa ci yow yow mi nga xam ne tubaarkàlla macha allah suñu boroom def na ci yow ah loo xam ne nii diine la alquran ak li nga xam ne mooy asra ba mu mat sëkk adduna sëpp soxla ñëpp di la wër ñëpp bëgg laa gis mbokk bi yow laa seet si tey ngir mu fas yow waxtaan ak mbokk taalibe yi lan ndaw loo xam ne loolu la ñu war a émission. waaw émission bi daal la ñun ñëpp bokk la la ku boo tàllee sa loxo <laughs> ñëpp bopp ah. ku ci bëgg <laughs> soo tàllee sa loxo allah mbokk yi kon dañuy àndandoo dugg ci biir waajal li nga xam ne mooy émission bi ndax jaamu yàlla bu ne tey bëgg lu baax tey wax ashhadu an laa ilaha illallah te bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa yi njariñ képp la fii ci biir kër seen émission fajum cosaan seen mbokku taalibe Serigne Gueye Mouride Sadikh ak Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan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 waaye noonu la ñuy jaaree bu baax tamit Serigne moo Modou Moustapha Fall suñu borom kattanal ko defal ko tawfeex ak tayseer ba lépp lu ñu bëgg ci liggéeyu ko Cheikh Khadim Cheikh Ahmad Bamba suñu borom kattanal leen ba ñu jëkkale ko jàmm ci ay Cheikh Khadim mbokk yi nag bu ngeen ma gisee tey ma toog ak li nga xam ne noonu laa ànd ak yéen ci li nga xam ne rek mooy seen bande annonce ci ki nga xam ne moom laa dalal tey ci seen émission fajum cosaan ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran sëriñ Ibrahima Ndiaye alquran kenn ku ñuy ci li nga xam ne mooy réew mi mbaa ñu koy diggital nekk koo xam ne boroom xam-xam la di koo xam ne gëstukat la di koo xam ne ku suñu boroom may ci li nga xam ne mooy wàllu ñaan ak wàllu asraar mu ciy dimbale doomu aadama yi te yàlla rekk tax sëñ bi tey kooku la ñu dalal tey muy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye mbokk yi ci seen émission fajum cosaan wax naa leen ko fépp foo xam ne nit ku baax fépp foo xam ne nitu yàlla nekk na fa te li mu yor di xam-xam bu wér mu mun cee dimbale doomu aadama yi mun cee dimbale ñi nga xam ne ñuy jullit yi moom laay seeti wër ko bu fu mu nekk ma fekk si ko ànd ak tey suñu borom defal ma tawféex ma fekk si ku baax ku yaatu. ku laabir ku bëgg lislaam ku bëgg li nga xam ne mooy dimbale doomu aadama kooku tey mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan moom laa fekk si tey dalal ko ci seen li nga xam ne mooy seen émission fajum cosaan ñu fas yéene ci ànd ak moom waxtaan ci waxtaan bu xóot mbokk yi nag ni ma leen ko waxoon ci bande annonce bi képp koo xam ne bëgg ngaa xam képp koo xam ne bëgg ngaa xam lu bari ci li nga xam ne mooy wàllu asraar ak li ñu ciy def ba dimbale ci doomu aadama mbokk yi seetaanal sa émission bi te bàyyi ko xel bu baax ndax xam-xam dana fi génn képp koo xam ne nag tubaarkaal ah mbokk yi ñëw na ñëw na te doon jaay ci wàllu xam wala ci wàllu asraar mbokk yi bee boo tey mën ngaa xam ne wala nga lem say bagage nga xam ne lamb lañu tey ki nga xam ne mën naa dëgg tey mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alhamdulilah Cheikh Ibrahima maa ngi lay ziare bu baax ginnaaw bi ñu ñëw askan waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ ñu ngi lay fay wa inniya u'iizuha bika wa suriyataha min asseytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziim sëriñ ñu ngi lay fay nuyoo nuyu mbokki téléspectateurs yi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di yi ak alxuraan mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek moom la ñu àndal tey mbokk yi nag ñu bëgg a waxtaane lépp loo xam ne dafa jëm ci diine waaye jëm ci li nga xam ne rek mooy wàllu asraar ak ñaan ak li nga xam ne it la foofu la ñu toll ci réew mi ci li nga xam ne nii mooy dimbale doomu aadama yi ci li nga xam ne mooy seen i tawat euh, sëriñ Cheikh Ibrahima ñu ngi lay fay te di la ziar bu baax a baax ñu bëgg a xam kan mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran. waaw kan mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran Cheikh Ibrahima Ndiaye jaamu yàlla la bu xeebu waaye nag ñun Sénégal ñu doon fii ci réew mi. ay maamam cosaanoo tey ba njaay seen jeexital di canaba set gannaaw ba nga xamee ni dañoo jaxasoo ak wëy yi ci réew mi ak nit yàlla ya fa nekk Cheikh Ibrahima nekk koo xam ni ñu ngi jàngee dëkk bu ñuy wax canaba kajoor ci ëttu Alaaji Taala Njaay gannaaw ba mu génn ci réew mi diiru juróom-ñaari at dugg ci fanweeri réew ak benn yoo xam ne dafa doon gëstu xam-xamul lasraar xam-xam boo xam ni mën na cee jëriñ jaam ñi rawatina waa réew mi Sénégal ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا يسوق سرمدا li xayrina iblisa zawqan akmada xulubu jumlatil hida tawajjahat li xayri durri wal muna li wujjahat xulubu jumlatil lasina aflaxu li tawajjahat wa rabbil muslimun ila lasina salamuni xablu naat madarati kasaakal kablu han intafat madarati wal balwa bi fadli muxni سمد الخد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيضان رددت لي في لسي أعبتا لي وجالب الأسى سببتا أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت لانفحالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أخرب وأجنبي وليحب للمسلمين أفرع يا من عن الأسى وترهب ما تما حلي مر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا نجح يا المصطفى بعد الصلاة مع السلام من عداهم الخلا يسر لهم بي لسي تعسرا fa kullu ma yasartu tayassara najaaka habduka alqadimu habdika murtajiyan naylal muna min handika fasallasina sahidu bil khayri wa ba man lam yasadu bi dayri ukrimatil abraru bin nakhimi wa kubatil fujaru fil jahimi si khallasina tarakul ibada لنار من من لم يطه أبدا تغيب من أراد أن ينخل ما أبرمه من ضيف لم يدما جزاء من بارس سنار البكاء fa kullu man abkaahu su kursi baka inna lasina kafaru wamtanahu min tawbatin raw jasa ma sanahu butunuhum sakan ala qaribu wal kullu minhum min sadidin saribu lil muslimina wa li kulli muslimat nuru lasi asaba ala sulumat هم الذين في الجنان يخلدون وهم مما يسرهم مخلدون مناهم تووا بلا سلاب والكل بالبسر سنخلاب رجاهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يولى وليس ينسفل أمام بارس الحالي فمنسفل بالله آمنوا وأسلموا مها ولتحسنوا لوجه باخ خمها وإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان مني له أنفه حمد وشكور ساحدمة للمصطفى حمد سكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني سوي النباخي أذكره وخاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدال سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لله وجه الضرر على الذي بي كفاني الخرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما خاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء هل ابن عبد الله سلبهائي براءة المختار ليست تفاء إلى خلا من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد سرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فساق ولي إلهي كسس داق ملكت ربي مالكي كليتي حال له كعملي ونيتي ردت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي براني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعر سعادتي دم براني من حيب نفسي بنبي صلاح عليه بسلام مبنبي هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في سين حدا والنوالا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولخاد الكلام فرعني صلى عليه الله في العالي وصحبه ومن والاه وجدت بالمحروف ملكني بكونك الكريما ما خاد لي تفسيرا وتكريما أتيتني القلب أنسى كلما مدى من الضر مع الظلما كافأني من ماله كفا أحد بما لخيري شاق كل من جاد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمك وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيدة خارقة لهادة المفيدة يا حي يا خيوم سل بسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم ولتقبل سل كلام منهلا خاري الحروف بما يفوق الظن من محروفي لناس من حروف خلد ربا يا من كفاه ذا الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا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 wa inni uhinsuha bika wa suriyataha min asaytaani rajiimi rabbi ahuusu bika min hamazaati sayaatiini wa ahuusu bika rabbi an yahduruuni allahumma bihaqi wajhika alkarimi salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رداك وردا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرعت جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك هادي البشير أشرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أشرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أشرت فورا لسوانا كل من ليس يكون وجب سؤالي للمنتقد ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جهل مختارا نافع زل ولتسلم في أبد هل الذي لك يقود من حبت اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واشكر كتبيا مسرة عيسى وكل من لم يهبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأسنوا مخجل من لم يسلموا كوي الأمة نبي صلى عليه بتسليم رب جلا إجابة تزهزه الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء mooy darajaat yi nga xam ne suñu borom dina ci dina ci jaare nit ngir yëkkati ko wala mu wàññi dégg nga wax mhm. kon yooyu dama la koy coteel mhm. daanaka cot mhm. alxuraan moom nekkul ni loos bëgg laal rek laal ko nee naa la nit yàlla daa am nu muy doxee waaye nag dinañ mën a waxtaan ba nga xam mais mbirum biddiw nekkul lu nit rek di xëy ni xay ni ci cëpp commencé leeral dafa am noo koy leeralee nit ki ni ñuy leeralee mbirum biddiw xajul ci émission déedéet waaye biddiw daal am na ilaaxa ak doomu aadama ba tey mbokk mi ni nga xam ne rek loolu la ñu àndee ba tey ci li nga xam ne rek mooy seen émission fajum cosaan mbokk yi wax naa leen ko tey maa ngi dalal ki nga xam ne rek mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi nag ñu fas yéene rek waxtaan ci lépp loo xam ne dafa jëm ci li nga xam ne mooy wàllu asraar ak li nga xam ne nii moo ci nekk ak secret yi nga xam ne nii moo ci nekk ba nga xam ne dinañ mën a dimbale ki nga xam ne mooy doomu aadama bi ci li nga xam ne mooy ak dundam naka la ñuy génnee nga xam ne rek mooy rawxaan ci nit. ñett yooyu tax boo gisee réew. Mhm. mooy seen problème. dëgg la nit ñi xam ne loolu malaayika. xam ne loolu rawxaan. xam ne loolu kuddaam. xam ne loolu jinn. Mhm. lenn lu ci ne borom xam-xam yi dañ ciy am ak wuute goo xam ne da jàpp ni jàng. Mhm. toog naa fii. seetaan ci sama télévision bi benn borom xam-xam bu mag kilifa ci réew mi. mu ni junne mënut a soppali. jinne mënut a soppali. waaw mënut a soppali. bu demee jàng ci sa yonent yàlla Souleymane dina ji bi muy soppaliku di sàcc jaaro bi di soppaliku nga xam ne toog na ñeent fukki fan ak benn ci nguur gi lu mu doonoon doonul nit ku ñëpp di gis. xam loolu day ñàkk a jàng day indi débat yooyu noonu. dëgg la yi. ndax dañuy soppaliku ak duñ soppaliku. Jibril mm. ñaata yoon la ñëw ci yonent bi mun leen góor gi toogoon fii muy Jibril. Mm. léegi nag yooyu pour nga mën koo distinguer nga xam ne da nga koy leeral nit ki ba mu leer ci moom. Mm-hmm. lu mën a nekk la. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaye il faut itam cër bi yàlla jox nit nga xamal ko nit ki bala ngaa favoriser lenn ci kaw. doomu aadama ci boppam. mooy xalifa yàlla ci kaw suuf sii ñuy dox. doomu aadama. doomu aadama. Mhm. rabat dinañ nekk daama yooyu yëpp ay jumtukaay la ñu ñuy jëfandikoo. Mhm. ngi dégg. Mhm. ñu ne ni bàyyi ma yi dem jëndi sam xar ray ko teg ko lekk mu mu lew la dong la yàlla may. boo àggee ci suñu borom loo mën a soxla lu dul nit ni yow am na droit jëfandikoo. nit ni yow sax moom. koo mën a nox ci nit ñi mën a ko xanaa tey koo loolu nga mënul <laughs> daal. noonu la yooyu demee. waaye dara jey doomu aadama. Mhm. ak bagage yi nit. Mhm. ci benn élément buy dox ci kaw suuf si budul nit. dëgg la bi yàlla suñu boroom di fasante kóllëre ak a doomu aadama. Mhm. mbooleem li yàlla sàkkoon nañ fi kenn ak nit kóllëre. Hmm? ndax suñu borom nit la fasante kóllëre boo paree nag wax na ak montagne wax na ak jinne yi wax na ak malaayika yi xamal leen ni leen kii mooy ki nga xam ne moom a représenté ci kaw suuf si gis nga sirru kun waaw lu yàlla bind boole na ko yow mënoo ko doxal doomu aadama dong moo mën a wax ni kun nekkal feeku na la muy sàkku nekk ci ndigul yàlla leneen lu mën a doon mm-hmm. boo bëggee ni nekkal la ngay nekk loolu nekk mm-hmm. moo tax ñoom ñi ci def ñëpp ñu leer bi isnillahi dañuy wax ne ñi ngi dox ci ndigalul yàlla waaye nit rek moo jekki-jekki am droit jël tamoo ko boromam di defee hmm. loolu yàlla daf koo may ndax diggante nit ak boromam mooy diggante bi gën a jege moo tax suñu borom ni nit ñi yéen jamono bi ngeen di xalaat ndax jigéen naa leen nag jigéen ñu ma leen lu gën a jege loolu man jigéen naa leen hmm. nit mooy bindeef mi nga xam ne moo gën a sës ci suñu borom yeneen yi yëpp nag tuutal moo dem mooy junni yeeg otaam yeeg yooyu yëpp dañ leen di jëfandikoo da ngay gisee nit jiital géttu nag di ko sàmm nit mën naa jiital géttu rawxaan di ko sàmm wala géttu xoddaam wala géttu malaayika gisoo benn malaayika moo xam ne yàlla du ko bind boole ko dëgg te nit koo gis yàlla jël na ñaari malaayika boole la moom jël na ñaari jinne boole la ak moom ngeen ñu nekk ci service benn nekkul ci service su lu yàlla euh, ci biir loolu euh, li nga xam ne rek noonu laay indee euh, li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu rawxaan ak li nga xam ne mooy wàllu jinne wàllu li nga xam ne rek mooy rab Cheikh Ibrahima borom alquran man sax loolu laay wax ma la ndax ku xool barab bi xool li nga xam ne tubarkalla fi nga ne xam ne li nga xam ne mooy diine lislaam ak alquranul karim képp ci ngay dund ak li nga xam ne moom la la lislaam jaral ak li nga xam ne loolu la la asraar jaral ba ngay génn di jël say billet d'avion di génn di dem ak a ñëw li nga xam ne rek mooy euh, euh, euh, jëm ci rawaan ak li nga xam ne mooy jinne ak li nga xam ne mooy rab nan lañ leen mën a différencier ak yéen lan geen leen di liggéeyloo ba ñu mën a xettali nit ki waaw man nag li may jimbalee nit ñi ndax foog ma dugg foofu ndax xam naa ne borom kurus nga man te nit ñi dañ lay xam hmm. mooy weer na tur yàlla hmm. wax naa fii baytal ba may laaj di seet man gis dépassé naa fu ma seet. ñu seet waaw gis nañ ba noppi. <laughs> non dégg naa la dégg naa la bu fii kenn fi seete dañ fiy gisee waaye kenn fi seete. Eh, amuñu ko fi seet fii. dëgg la man bokk. Mhm. rus naa nit woo ma wax ma soxlaam ma ne fay seet ak fi ma toll ci dëgg la. passé naa yooyu man nga dégg. Mhm. doo jàng ba am bac. Mhm. ñu lay jox programme mu CI. nga ne cay nam naa dëgg la dëgg naa la de. dégg nga waaw dëgg la dëgg la. yooyu dépassé nañu. wallaahi ndeysaan la ñuy def un moyen dix. dëgg la nga xam nooy def foofu lañ toll. un moyen ba xam nooy def. waaw foofu lañ loolu yéeme na rek. te danañ ko lijjanti nag. neuf moyen dix-sept. maa ko wax. te loolu dañ koy lijjanti ba mu mal nit ki ñëw na taxaw ñu xool ko xool li ne ci moom xam li ne ci moom fajal ko aajo dindi li ne ci moom ci li bon defal ko tawféex mu dem. waaw loolu ñaar rek koy def. waaw ci borom tëru yàlla. am mm-hmm. mooy xam-xamu mm-hmm. xam. nooy xam. gëstu mooy xam-xamu gis. nooy def ba gis ci yàlla nooy def ba xam. waaw werd naa julli naa ci yonent bi liggéey naa ismul kabir liggéey naa ismul akbar ba am xam-xamu xam xam lan mooy mahrifatu billahi doon aarifuna billahi man àgg naa ci ay garab doon kaamilul irfaan yi xam-xam la ñu jàng ma ne nag laay wax yow weesu na ñu jàng ma <laughs> koo xam ne ñun nit ñooy mën nga ko orienté te ko système dëgg la kësu mooy loo xam ne loo xool gis ko loo bëgg xam ci xam ko ak ku mën a doon xam fa mu tolloo waaw sama sëriñ day kilifa ci dëgg la dañoo toog ma ngi toog sa jataay bi kee ak kenn génn hmm? waaw fii génn ñi yaa ngi gis dëgg la daan nañ ko pour yow. sëb sëriñ yow. boo ko <laughs> kay loolu beneen dimension la loolu beneen dimension la. loolu jàng si dafa xam. Mhm. nit ki dafa am yu muur ci moom te mooy yi ëpp solo nee naa la bu suñu borom dimbalul loolu ba nga mën koo gis. Mhm. boo doon ba sa bëri jot doo ko ndimbalu yàllaa ngi fi euh, loo xam ne la dañu koy gis du lu ñuy seet ndax dépassé nañu stade boobu dépassé nañu taxaw di naa nangam woo nit ki naan ko ay na déedéet sëñ bi weesu la foofu euh, li nga xam ne rek euh, tubaarkàlla loolu la ñu mën a indi tey jii li nga xam ne nii moo gën a gaaw ci li nga xam ne rek mooy samp ni parce que ñu ngi waxtaan ci wàllu asraar ñu ngi waxtaan ci wàllu xam-xam yi ñu ngi wax ci wàllu waaye damaa bëgg loo xam ne tamit dina dimbale li nga xam ne rek mooy nit ñi ndax téléspectateur yi ñu ngi seetaan te ku ci ne amaana am na loo xam ne mi ngi ci moom te bu sañoon tey taseeg Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan mu dimbale man daal li ma la xamal mooy ku yaakaar ni alxuraan mënu laa dimbali man ñu ci man yaakaar ni alxuraan mënu laa dimbali man nga maa tegg ndax lépp looy def ci alxuraanul karim boo koy def Mhm. Mhm. képp koo xam ni yaa ngi ñëw ci man jàpp ni alquran mënu laa dimbali man nga maa teggi képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci man jàpp sa bopp bii ni am na lu gën a gaaw yàlla tegg ma ndax dara du fi fañoo waaw man daal li gaaw nga xam ne gaaw na mhm. yonent yàlla Souleymane ba mu dajalee nit ñi ak junne yi ni dama bëggoon ki gën a gaaw ci yéen indil ma siis yi nga xam ne ci la baax président toog mm-hmm. junne yi sob sob lu naan ñun man nañ ko waaye mm-hmm. ci diggante jug ak toog lañ ko man jëmm bi ñuy wax asi jul bun baltiya dani ko man mm-hmm. naa laa indil li ngay laaj ci diggante xef ak xippi laata ñoo xef ak xippi mu indi ko xamul ko may ismullahi azam bi ñu yor jamono jooja moom mi ngi liggéey basmala basmala mooy bismillahi rahmani rahim loolu rek daan wer yàlla dimbalee ko ci bu naan kun yàlla naan fekkun loolu nekk fii dañoo wer tur ba am ijaaba lu ñu neex ñuy ñaanee fii dañoo liggéey tur ba am fatxu mm-hmm. xam nañ lu bari fii dañoo liggéey tur yàlla ba am këstu dañuy gis lu bari. ku yàlla mënut a dimbali moom yàlla mi la bind dama ne woon mënuma laa dimbali. dëgg la. ku jàpp nag daa am leneen lu gën a gaaw yàlla fu la neex demal. loolu wér na. muy wax ci wér. waaye ñaar yii. ñu tey réer réer waaye kenn du ko réeree. muy. fa nga jógee fa nga jëm. fa nga jógee. mooy ci yàlla. fa nga jëm mooy ci yàlla. feneen foo xam demal. loolu wér na jërëjëf euh, Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan mbokk yi euh, wax naa leen ko de kii de cheikhul asraar la te ku nag euh, koo xam ne am nga loo xam ne nii ah mu ngay jaay ci wàllu asraar te mu la boo yeboo rek nga laal say dëbës te xam ne fii Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan tubarkàlla li mu ci bëgg ak li mu ciy def ak li mu ci fere yoon waa ngoog euh, tubarkalla kon ba tey mbokk noonu la ñu ànd ak yéen mu ngi ci adresse am mu ngi ci cité euh, magistrat 77 097 94 94 wala 78 169 63 63 li nga xam ne rek moom laa bëgg jëm ci mu jëm ci wàllu cet ak bët ak làmmiñ cet bët ak làmmiñ ña koy def waaw ndax danañ ko semp ci nit nit di ba mu delluwaat ci am na ñoo xam ne nee na cat sax boo ko raxasee waaw cat daal moom yonent bi ko dëgg moo tax kenn mënu ko weddi su dee ibaada yoo xam ne la cat amul waaw donc naa moytu leen kay ah kay ah, da ba bët bu ñaaw dégâts bi bët gën a njëkk a def mooy yonent bi ci boppam. Mm-hmm. kenn dañoo muuroon benn waay boo xam ne bët yi dañoo wax ni ku ci xool nga faat. waaw ñu fexe ba indi ko la génn ci biir première sànq bi mu muur ko pour bëgg mu xool leen. gis nga imaam yi boo leen gisee ni ba ba ci yàgg ñu àgg suuf toog. bi yonent bi di xutba ba àgg ba war a àgg foofu imaam yi di àggee suuf toog dama la koy leeral ci saa waaw lan murid borom ba dee mu ne ko jàkk si na jiw lañ ko. ne yonent bi ngi tolloon allah akbar allah akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asira biñ ko najee fi bëri daloon moo fukk mbiru jumaa bar na min mel booy dem gis paa yi bënn fa ay bën bën waaw barkeelu ndeysaan yaakaar ni bët waa bare ba léegi bët la di see la di see la dëgg naa la bët bët ci boppam hmm. nit gis na nit hmm. boo xam ne ci saaba yi la la la bokkoon hmm. muy sumee kuy sang mu gis catu ëppal bi yaram mu rafet bi mu gis kon ni ay diw yaram rek saway daan làmmiñ waaw nga xam ne xam na ba ñenn ko indi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi leen wax ni bët moo ko def lan moo ci musal doomu aadama li Sëñ Tuubaa wax nag moom la ko ci gën a mën a musal doomu aadama Sëñ bu ngeen xamee borom bët yi ñaar yi nga xam ne moom luñ borom yàq hmm. ak borom làmmee yi nga xam te ne luñ wax mu yàq hmm. dajale leen leen jar na ko wutum néeg tëj leen fa imaam bu leen di dundal ngir ngeen mucc ci ñoom laa ilaaha illallaah dëgg la yaa ngi dégg waaw nit yàq la na loo xamante ni si nii bët bu yoonam nit ci moom ko yàq hmm. nit daan na cardiaque sax ñu jàpp ni feebar bee demee noonu fekk bëti nit ñee ko jàpp hmm. am na nag muslaay yoo xamante ni si man dama ko ciy defar yoo xam ne yu waaye damay bañ nit ñi jàpp ni bët hmm. ak làmmiñ da dul frein doomu aadama ba dañ ko sóoraale hmm. nit mën naa xëy suba ngoon di wut munta am dara fekk li nekk ci moom ci cat bu dañoon mooy raw taw buy sote jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima ba tey ak noonu nga xam ne rek noonu la ñu àndee ak yéen mu jëm ci wàllu li nga xam ne rek mooy rab ak jinne li muy yàq ci doomu aadama surtout rab sax am na ci ñoo xam ne bëgg nañu soxna mënuñu ko am am na ñoo xam ne bëgg nañu borom kër mënuñu ko am na ñoo xam ne ñu ngi yor seeni alal bëgg cee def lu baax bëgg cee nangam rab di ko yàq am na ci ñoo xam ne ñu ngi bëgg njaboot bu barkeel mënuñu ko am rab li muy yàq ak rab ndax am nga ci solution ngir dimbali ci. waaw yoo xam ne dañuy dem am yoo xam ne. Hmm. démb rek benn jigéen wala la. Hmm. ni ma dama gént am yeewu boof ci sama kaw ba pare nen ma nen lu bari. ah. ko ànd nga rab boo xam ne même bu demoon ba faatu ay sëtam dañ lay topp. man yow moom bëreeg boo ci ñoom. léegi loolu. lu ci solution nees la ñuy def ba loolu saafaraw waaw rab dañ koy takkale ak nit waaye damaa rey rab waat. Hmm. dama ko doon dóor rek. Hmm. li doon caddi caddi rab bi laa. waaw yooyu yëpp wax sa xalaat bi si. Hmm. ñuy wax seen xalaat ci liñ liñ xalaat. ndax ak borom xam-xam yi wax liñ xalaat. tubarkàlla waaye rab moom. Hmm. waaye lu naqaree dindi la. Hmm. ak seet ñooyam. Hmm. ñu ne seet nit ba gis ko. li ci ëpp yi. waaw ñu ngi daj ci seet nit ba gis ko. waaw. <laughs> buñ ko dajoon seen bopp ñoom am alal. lu ngeen ko dégg dégg lu ngeen ko wax de waaye nit ñi dañ leen lu ñuy dindi boo ko dindee benn yoon même boo ko dee dindiwaat doo ko fekk dafa am dafa am dafa am dafa am question bu ma la bëgg a boo xam ne euh, lu ma jaaxal la ndax xam man moom fi mu ne euh, li may laaj damay laaj rek te xam naa ne li may laaj yëpp solution yi mu ngi fi waaye dafa am lu may laaj nit dina toog ne nekk ci barab ñu bari seet si ko ku ci nekk mu bind sa tur bind sa tur ndey bind sa tur baay mbaa nangam bu guddee mu bëgg leen a fanaanoo ndax bu xëyee mën naa jox ñëpp solution. doomu aadama daal mu mën a doon. waaw moo xam na nga koo fanaanoo na nga koo yendoo. Mhm. faj aajo lañ xam man tey fanaanoo yendoo laa xamul. loolu xamoo ko ndax dépassé nga foofu. waaw dama laa wax sama bopp. ko. Mhm. faj aajo yi nit. laa xam ci lu gaaw toog ci sama kanam toogaay ba moom calaal jo moo ci ma jox man du toog ak koo xam ne yàlla dimbali la ba pare yàlla moo lay dimbali ba pare loolu moo laa indil dëgg naa la li nga dëgg naa la bi ci topp mooy téeméeri nit ak junniy nit laay maye dëgg la téeméeri nit luñ bari bari mënul waxandoo ñëpp mënta ne lu mënta ne ci say mënta ci bari déedéet ak maa dégg dëgg yaa ngi dégg faj aajo yi naa yow man sa aajo dina allah dañuy gis nit ñu ne umu na nit tëju nit mënta am dara nit ki mënta ndax loolu am nga ci solution nit koo xam ne maanaam yoroon la ba mu yàgg yoroon am na lu ko dal am na lu mu ump nit koo xam ne mu ngi wut di dang-dang yi suba ba ngoon jot day liggéey ay heure mënta am dara ndax aajo jaam ñoom ñu koy fay. mais xam nga ku connecté wu mënul ko ci réseau loolu dëgg la. dëgg <laughs> la waaw. su ma nga connecté wu jeex nga soxla. pour lu jënti ni ma la ko defalee. déedéet. mais képp koo xam ne déconnecté nga mooy borom bi parce que bu dee gars yi dañoo nekk ci dëkk bi. Hmm. jokk ci réseau bi di woote di wuyu. ñu hmm. koy di yooyu yëpp mënoo ko boo ñëwee li ngay nga bokk amul problème. li ñuy def nag bu def sarax la dañ koy def. Mm-hmm. bu dee yàlla bu ne liggéey la dañ koy def. bu dee sangat la ñuy jël jox la nga sangoo ko dañ la koy jox. bu uh-huh. tegtal la dañ la koy defal. Mm-hmm. waaye li am importance mooy dañ la connecté waat waaye nag li bon mooy fay sa xaalis ba pare te connecté wu waaw loolu moom dara jaru ko. loolu daa jar ubbi sa làmmiñ yi wax ko fépp ñëpp dégg ko. dëgg la. dégg nga wax bi uh-huh. loolu moo am ñaan méttiwul. mbirum yàlla la ki yàlla dimbali muy ñaan dara ma gisul ci man fi ne réew boo ko tegoon sama bi du tee ma waxtaan ak mhm. du diis. Mhm. da nga di wax bi. Mhm. loolu noonu demee si. maanaam dafa am yoo xam ni. il wax réalité yi ngir nit xam ko. ñaan dimbalul yàlla la. ku yàlla dimbali nag doo sonn. kii ñaan lu yàlla la soxla. boo dimbalee ci yàlla dootu sonn. waaye ñaanal nit ki muy gën a sonn mooy lan. dama bëgg xam euh, damay faral ci gis euh, ñu ne loo xam ne dafa jëm ci wàllu asraar muy li nga xam ne rek mooy ay xaatim nit bind xaatim ndax ci biir xaatim gars yi dafa am loo xam ne bu mënul da ngay baax waaye mënoo lor doomu aadama xaatim bu dam lu mën a def ci doomu aadama. xaatim boo xam ne lañu lañu def ci biir lu jaar jaar yoon la mhm. loolu moom dëkk ba mu dam moo wax dëkk boobu leen neexee jëf naa xadi daw daw daw dem xaatim bu dam mën naa ko fa nitu yàlla parce que tuuma laa ñu ba ci nit sax ak ba waaye nag na fekk xaatim ba mhm. la ñu ci biir di position bu normal mhm. ñu bari ñu ngi yor xaatim di la bind li ñuy bind jërul ngay ngay nga koy sax liir mhm. loolu lépp soo ko boolee ay kamaatala rek bay diw ko yoroon bopp bi bay diw bay diw bay diw di xaaj pasal la mhm. ci xaatim bi rawxaan yi ci nit ki ah. bay doxal nit ki ah. mooy dox ci biir xaatim bi mhm. maa ngi nii dëkk dëkk mën nañoo xaatimul xaatim jël xaatim bi teg ko ci seen ginnaaw per permis ak xaatim bi ci seen ginnaaw di wax ak moom mu am kàddu di wax ñu koy dégg mooy atif wax nga koy dégg te liy wax ci xaatim bi la nekk loolu bu dëgg jamono kenn jamono sànq. déedéet lu waaye di jaay dina lamb de <laughs> fii lu fi waaye di jaay dina lamb ndax euh, dama daan toog ay nit ma ma. tubaab gars yi danañ teg seen tableau danañ teg lu ne euh, bind tubaab kàlla loolu la ñu def ko impressionner les ci loo xam ne nii dafay xaw a doy waar. daal sëñ bi. Mhm. Mhm. sa bopp ku yàlla duñ ko rëy. barke borom tubaab. yaa ngi dégg. Mhm. booy dimbali ni ko dañ koy dimbali leneen lu dul dimbalu yàlla dañu am problème. dëgg la. nit ñi nag kenn mënut a yee ñëpp. waaye mën nga cee yee ñu bëgg ñi seeni nelaw jeex te bëgg a yeew bu <laughs> leen laal ak ñu yeew li mu dafa toll koo xam ne <laughs> man sama dimension ci bopp maa tudd fu may waxee loo xam ne ni da koy wet <laughs> ñu dajale yëpp yor ko ci réew mi bagage bi pexe la pexe nag daa soriwul lenn lu nit yor mhm. boo ko laajee cosaan la bu suur ba mhm. juguwul ci yonent bi ak yàlla bàyyi ko loolu moom du yëngu nit nit nag yor na lu bari loo xam ne boo ko ci moom de mhm. ndax buy ñëw bi mu ñëw indaale ko buy def la koy bàyyi wallaay wér na waaw nañ delloo yi nit ñi nañ leen ci kaw suuf lu fi wut si bu ñuy dellu lu ñuy soxla jëmmi doomu aadama boo xoolee lépp li ci gën mooy xol ba. xol doomu aadama lenn dong nga ko mën a defar du sa ngoy téere du naan dara ala bi zikrillahi tatma'innul quluub yàlla nee na nit ku ñëw ci man te indaale woo fi xol bu sell di nga delloo wala di nga ko am problème. ak xol nag li koy raxas ba mu set. mooy tudd yàlla mooy zikkar. dañ tuwaay nee na amma dawaamu sikrullahi fa huwa akbar lu ngeen gis ci adduna tudd yàlla moo ko doon min kulli ma kaana al muridu yusiru wa kullu man saala nii fa lii jawaab qabla wala tujaadilu ahlul ñu dàqa werante ci adduna buñ doon werante yéen ci loolu yóbbu leen ci alxuraan rek yàlla xanaa kenn du ko weddi yàlla ne waqimu salaata inna salaata kaana ala inna salaata inna salaata kaana ala na kitaaban mawquuta mhm. suñ borom wax tamit ci alquran ni mhm. yéen nit ñi da ngeen xam ne tudd yàlla mooy li gën a mag ci yéen gannaaw sax julli bu ngeen ko ci boolee julli googu tudd yàlla moo ko gën a mag ci yéen mhm. Hmm? wala zikrullahi akbar fi des nit ñi dañ leen orienté waat ci yàlla yàlla lañ fi nekkal la nit ki boo ko delloowul ci yàlla. foo ko mën a delloo jëmu foofu. kon nañ gën a góorgóorlu ci yàlla sëriñ. nga xam ni ñaan duñ ko def ku dul yàlla. baatu olof nga dégg la ñuy wax boo gisee ñaan duñ génn yàlla loolu mu ma ko. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye euh, mbokk yi euh, alxuraan tubaarkàlla xol sedd na buy dëgg yàlla ndax li ñu toog di ci waxtaan lii la soxla lii la bëgg. ci loo xam ne dafa jëm ci li nga xam ne mooy askan bi li ñu mën koo consommé ak li nga xam ne mooy xel mu dal mën koo consommé ak li nga xam ne mooy euh, bàyyi xel ci li ñuy wax ndax nit ku nekk nit nga te am nga xel ndax suñu borom dafa sàkk doomu aadama jox ko am xel jox ko mu war di xalaat jox ko muy am ay yëg-yëg yoo xam ne ni tubaarkàlla te bu dëgg jibee nag dañuy xam ne fii dëgg jib na fi bu lu baax jibee dañuy xam ne fii mu baax jib na fi te léppam loo xam ne ni ñu koy def ci alxuraanul karim wax na ko lu génn yàlla génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul ci soxla te képp koo xam ne da nga fiy ñëw ngir ñaan loo xam ne génn na yàlla génn yonent bi soxlawul ngay ñëw ndax lépp lu mu yaakaar ci addunaam kurusam yii la ak li nga xam ne mooy turu yàlla bi ak li xam ne moom lay liggéey ci alxuraanul karim sëriñ Cheikh a Ndiaye alxuraan di cheikhul asrar mbokk yi wax na leen ko ci dégg dinaa leen képp koo xam ne am na mooy jaay bëgg mu jaar moo egg see bàtt Cheikh jàppal ne lam na ndax dootul ndax kii dafa jël li mu yor ak alalam ak doole def ko ci li nga xam ne mooy kurus def ko ci alxuraanul karim def ko ci li nga xam ne mooy asraar ngir jëriñ ko doomu aadama mbokk yi sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan moom la ñu àndal tey mu ngi ci cité magistrat téléphone bi 77 097 94 94 wala ci 78 169 63 63 numéro baa ngi noonu ci barre de l'écran mbokk taalibe bi. dama koy bàyyi rek mu tàggoog mbokk taal bi dinañ dee ñëwaat ak yéen ci yeneen i émission yoo xam ne nii danañ waxtaan ci leneen loo xam ne dafa jëm ci wàllu asraar ak tuur yàlla mbokk yi kon ma bàyyi sëñ rek mu tàggoog mbokk taal bi ñu dellu si waat ci yeneen épisode yoo xam ne dañu dellu si waat incha allah. waaw tàggatoo gi daal sëriñ mooy fàttali nit diine. day dox ak mbokk ñi nga xam ni ay jirim lañu te seeni alal ne ci loxo yi dañ leen ko delloo day ci ndim dugalum yàlla ci xeet ndaw ñi nañuy bari lu ñuy tuub dañu bari lu ñuy julli ci yonent bi seeni njariñ génnul yooyu gannaaw ba nga xam ne nag ñu ngi ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm bu sax dakk def fi kaaraange élection maire jub dafa jógee coow li bari na ñu ni dal incha allah Mbacke nee na rek la ñu la koy jox dañ lay daj ñu koy nangu dañ koy jëru xëcc ku rafetal la ci yàlla dina faral naa yàlla déglu ñun ñëpp kàddu yi ma fi yëkkati lu ci jub yéen jërëjëf mbokk yi comme ni nga xam ne rek noonu nga ànd ak yéen ci seen émission faju cosaan man euh, sëñ Cheikh Ibrahima daf may tàngal ndax su ma nekkee moom dafa am ci benn dimension bu may toll euh, tubaarkàlla ba tax na li ma bëgg yëpp sax euh, ci moom damay dugg yónni ko génne ko mbokk taalibe yi mën a jariñu mbokk yi képp koo xam ne soxla nga sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan mbokk yi numéro téléphone baa ngi nii

léppam turu yàlla la wàkkirlu ci suñu borom lay def sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te léppam ci diine lislaam lekk la képp koo xam ne nag am na leneen lu mu fi indi loo xam ne génn lislaam dafa mel ne rek dafa taxawee waxi Serigne Saliou Mbacké lu dul lislaam aw ma ci defar aw ma ci ñàkk day ci loolu dong la sax mbokk yi seen mbokkum taalibe seen Gueye Mouride Sadikh doon ànd ak yéen ci seen émission fajum cosaan ak Cheikh Ibrahima Ndiaye Al mbokk yi dama leen di jox dox daje ci beneen émission bu ma fas yéene ànd ak moom ak ci beneen thème bu ñu war a dugg waxtaane ko mu leer nañu ci bopp doomu aadama mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ahuusu billahi min asaytaani rajimi wa inni uinsuha bika wa suriyataha min asaytaani rajimi rabbi ahuusu bika min hamazati sayatini wa ahuusu bika rabbi an yahduruni allahumma bihaqi wajhika alkarimi salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin bienvenue sur Salam Vision